بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديل سيغيين سي ليرال تيري بو ام سولو بيغا خامني موي كتاب الادب المفرد للامام البخاري رحمه الله ومن تاملي ونن سي درس بي ويسو jotoon a leeral lenn si njàll benn bunt bi nga xam ni moom la imaamul buxaari raximahullah ubbee téeram bi muy baabu qawlillahi taala wa wassayna al insaana bi waalidayhi xusna jotoon nañoo leeral lu aju si euh, bunt boobu kon dañuy ñëw incha allah dugg si xadis bi nga xam ne mooy njëkk si bunt bi من يقول الإمام البخاري رحمه الله عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني يقول الإمام الألباني رحمه الله صحيح بقي حديث بن جك بن الإمام البخاري رحمه الله إني نكو تيرم بي خمني الأدب المفرد xadis bi day ñëw di wane comme ni mu ko duppee si bunt bi baabu qawlillahi taala wa wassayna al insaana bi waalidayhi xusnan day ñëw di leeral li nga xam ne moom mooy baaxe ay si ay waajur rafetal jëme si ay waajur imaam buxaari mi ngi nettali jëlee si abi amru alshaybaani mu ne xaddathana saaxibu hadihi daar mooy nettali abu amr shaybaani di nettali mu ne waxtaane nañu boroom kër gii maanaam boroom kër gii mu joxoñ benn kër kër googu mu joxoñ nag mooy këru abdu abdullah wala abdullah ibnu mas'ud mu ne boroom kër gii de wax nañu ne moom abdullah ibnu mas'ud mu ne sa'altu nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi ma ne ko ayul amali ahabu ila allahi azza wa jal ban jëf mooy jëf ji nga xam ni moom la yàlla gën a bëgg ban jëf mooy jëf ji nga xam ni moom la yàlla gën a bëgg bi mu ko laajee yonente bi sallallahu alayhi wa mu tontu ko mu ne qaala alsalaatu waqtiha ونكو موي جولي سي وقتوم جولي سي وقتوم كوم نيكو يالا فراتالي كوم نيكو يالا سانتاني بربي سبحانه وتعالى بي وحني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جولي دي دا فا نيك لو خامني لونو فراتال سي كو جولي ني لا مو نيك فراتا غو خامني بو نيو تنك سي اي وقت يو خامني ني خام yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di leeral waxtu yooyu yëpp julli bu nekk am na fi muy tàmbalee am na fi muy yem kon julli si njëlbéen waxtu bi moom mooy li nga xam ne mooy jëf ji nga xam ne moom la yàlla gën a bëgg parce que julli dafa am heure bu muy dugg am bu muy génn kon doo ko njëkkee di ko jiital heure bi duggul waaye tamit doo ko bàyyi ba mu génn nga bëgg ko julli tamit kon li mooy julli ko si njëlbéenu waxtoom lu dul loo xam ne nag dafa am ngànt boo xam ne charia moo la ko may boobaa dina mën a nekk waaye bu dul loolu moom julli si njalbeenu waxtu moom mooy li nga xam ni moom la yàlla gën a bëgg qultu ma ne ko moom abdullah ibn mas'ud radiallahu anhu mu ne ma ne ko suma ay topp ban nag moo gënal yàlla subhanahu wa taala si ay jëf ginnaaw julli si waxtoom qaala suma birrul walidayn mu ne ko topp nag nga baaxe say waajur birrul walidayn birr buñ ko waxee mbokk yi baat la bo xamne dafa ëmb bépp yiw dafa ëmb façon rafetal yépp dafa ëmb façon jëflante bu rafet yépp lepp lu bax lepp lu rafet baatu bir daf koy ëmb yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam bi nga xamé ni tuduna julli ci waxtom lim ci tek mom moy nga baxi say wajur nga rafetal jëme say wajur nga dimbalé say wajur nga jappalé say wajur nga respecté say wajur nga noy wàcce sa bopp sa kanamu say waajur nga topp say waajur si bu neex yàlla nga dimbale leen jàppale leen rafetal jëme si ñoom si wax ak si jëf gis nga nga gis ni fii mu ngi ñëw di wane ni ginnaaw àqu yàlla ndax julli yàllaa ko farataal si kaw jaamu mi ginnaaw àqa bi jàllee li ñu ci teg bu mooy àqu waajur nga gis ni kon ni leen ko waxee woon si dar si ba la weesu yàlla subhanahu wa taala bëy na si quran foo xam ne bu tuddee àqam ba paree rek li mu teg mooy àq ay waajur fii tamit leer na nañ yu mu tuddee julli nga xam ni dafa war si jaam bi mu joxe ko jaamoo ko yàlla subhanahu wa taala li mu si teg moom mooy si jëf yi yàlla gën a bëgg mooy baaxe ay waajur rafetal jëma si ay waajur qultu summa ayu mu ne ma laajal ko ne ko topp ban qaala subbal jihaadu fi sabilillah topp nag jihaad xare si yoonu yàlla fii sabilillah la wax loolu dafa lay jujj ne dafa lay bëgg a wan ni jihaad dafa war nekk loo xam ni yàlla mooy tax mu sell ngir yàlla subhaanahu wa taala moo tax mu ne fii sabilillah maanaam ki jihaad na jihaad ngir yëkkati kalimatu tawxid man qaatala li takuna kalimatullahi al ulya kooku mooy ki nga xam ne moom mooy mujaahid dëgg kii xeex ngir yëkkati baatu tawxid baatu la ilaha illa allah ngir tawxid daal di fés daal di ko def ko ngir ngistal def ko ngir xeet def ko ngir leneen lu dul rek day xeex ngir yëkkati baatu tawxid ngir yëkkati diina yàlla ji subhanahu wa taala qaala abdullah ibn mu ne xaddathani bihinna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma nettali moo ma wax yii mu ñett yii julli si waxtu bi baaxi ay waajur xeex jihaad si yoonu yàlla mu ne wala wistazattuhu la zaadani su ma sàkkoon si moom mu yokkal ma mu dolli ma yaani su ma ko waxoon su ma topp lan kon dina ma yokkal xalis bi am na ay njëriñ ñu ci mën a jëriñu bis njëkk mooy si gàttal rek mooy xeer koo xam ne saxaaba yi xeer nañ ko si xam jëf yi nga xam ne mooy jëf yi gën a màgg jëf yàlla gën a bëgg ndaxte kat nga fexe ba xam jëf yi yàlla gën a bëgg jëf yi gën a rëy jëf yi yàlla gën a bëgg nga xam ko nga fexe ba góor góorlu si loolu nekk na ngëneel goo xam ne ngëneel gu rëy la waaw ndax jëf nu mu gënee rëyee yàlla gën koo bëgg nga fexe ba góor góorgóorlu si moom moo gën nga di góor góorgóorlu si loo xam jëf joo xam ne xëy na am na lu ko gën a rëy am na lu ko gën a foor am na lu ko gën a am na euh, moom la yàlla gën a bëgg gis nga ñoom saxaaba yi daanaka dañ daan xool li gën a kawe li leen gën a jégal seen borom subhanahu wa taala li ëpp yool li ëpp daraja loolu lañ doon jéem a gëstu di ko laaj ngir mën koo jëfee te loolu feeñee si xadis bi ñaareel mooy dañ si déggee ni diine jëf yu baax yi jëf yu baax yi yëpp a baax yëpp am solo waaye nag dañoo gënante nag am na yenn yoo xam ne ñoo gën a foor yenn ñoo ëpp daraja ñoo ëpp tamit yoon comme ni ko yonent bi saa sam jàngalee ni al imaanu bid'un wa sab'una shu'ba gëm yàlla juróom-ñaar fukk ak nangam ay xaaj la bi si gën a kawe te gën si mooy laa ilaha illallah wax laa ilaha illallah bi si gëna a moy randalé randale xamné day lor ay julit lo xamné mëna loré nek ci kaw yoon nga daal di koy dindi mu wax ni kersa nak mom bokku na si patti gëm yalla yi ko nga gis ni ah jëf yi jëf yu baax yi dañoo ëppante dégéré eh, dañu ëppante tamit yoon dañu ëppante tamit daraja waaw biñ ci dégé tamit ci hadith moy saxal melokanu bëgg ndax dane saaltu nabia sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayul allah ban jëf moom la yàlla gën a bëgg te loolu jaam tamit dafa war di xam loola moo tax yonent bi sallallahu alayhi bokk na si ay ñaanam mu allahuma inni asaluka xubbak wa xubba man yuxibuk wa wal amal alladi yuqarribuni ila xubbik yow yàlla maa ngi lay ñaan nga bëgg ma maa ngi lay ñaan tamit nga dëppale maag muy bëgg li nga waaye tamit nga dëppale maag li nga xamne moy jëf jo xamni daf may jegeel sa bëggel yow day tax nga bëgg ma kon yalla subhanahu wa taala day bëgg kon wa kon dañuy saxalal yalla melokanu bëgg comme ni nga xamne non la yello ci màggaayam ak ci ah, ak ci euh, dara jam ak si teddaangam jalla fi ula euh, ni ki non tamit dañuy jël ñëw si xadis bi mooy foor goo xam ne foor na ko te gis nga bi mu tuddee julli ba pare rek baaxe ay waajur la ci teg mu jiital ko ci kaw jihaad fi sabilillah kon ni ñu si déggee moo ni baaxe ay waajur moom moo jiitu sax xare si yoonu yàlla moo tax nit ki waroo dem di xare ji te amoo sa ndigalu ñaari waajur te loolu dina ñëw ci xadiis si kanam incha allah lu dul mu nekk jihaad boo xam na xëy na dépassé na fardu kifaaya ndax jihaad fardu kifaaya la bu ko bu ko ñenn ñi taxawee day wàcc ñeneen ñi waaye nga xam ne nag ah, noon bi dafa dugg par exemple si ab dëkk di faagaagal di rey foofu nag dootul nekkati loo xam ni lu ñuy xalaate ay ndigalam yu mel noonu lu nekk fardu kifaaya waaye ñëpp ñoo war a génn daal di daal di jàmbaar balaa muy jeexal dëkk bi waaye bu dul loolu moom maanaam bu fekkee fardu kifaaya la nit ki waroo génn dem di xeexi fenn di jixeeti te fekk amoo sa ndigalu ñaari waajur bu fekkee ñu ngi dund nit ki noonu tamit mbokk yi dañ si dégg yéen yi tamit ne euh, saxaaba yi ñu bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu yërëmoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam la ñoon ñu bëggoon bañ a sonal yonente bi alayhi salaatu wasalaam gis nga Abdullah Mas'ud nee na su ma sàkk woon si moom mu yokkal ma dina ma yokkal waaye loolu ñëw na si saxi muslim mu leeral li ko teree mu laajal yonente bi sallallahu alayhi ne ko suma ayu suma ayu ak lan ak lan mu yem si ñett yi rek nee na fama taraktu أستزيده إلا إرعاء إرعاء عليه nee na dara teewuma ma continuer di ko laaj ak lan ak lan lu dul yërëm gu ma ko yërëm ak bañ ko teg coono bañ ko teg coono kon nga gis ni ñoom dañ doon dañoo amoon ni ñeewante si yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgguñ ko woon a sonal lu ñuy xir xir xir si xam-xam yenn saa yi ñu xool maanaam xam ni kat yonent bi xam sonn na wala boog yenn saa yi ñu bañ ko sonal si ay laaj ndax la ndax lañ ndax lan ndax bañ ko ndax bañ mu son sonn gu ëpp wala mu dem ba manam mbir mi du ko mëna atanati waye mu rus leena gantal yu mel non moo tax dañ daan sam côté bobu moo tax ci déggé ni yow ndongo bi bul di sonal sa sëriñ bi lay jàngal ci ay laaj yu bari yeen saay na nga yem si yeen laaj rek bàyyi ko mu noppal yu mel non rawat na boo jé ci mom manam mandat bi yowee ki sonu na wala jotaay bi yagg wala yu mel non lo dañ koy jàngé si yaru sahaba yi waye buntu bi li ko moy li nga xam moom la yontu wax ni summa birrul waalidayni maanaam baaxe sa ñaari waajur ginnaaw ba nga xamee ni tudd na julli si waxtoom ne moo gënal yàlla subhanahu wa taala li si tegu moom mooy nga baaxe say waajur kon yal nañu yàlla boole si ñi nga xam ne dañuy baax rafetal jëme seen waajur yàlla nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi